te di ko la fekk ci sa bërëb bu taaru bi waaw ci sa àjjana ji. oui kii man la lépp neex na waaw yàgg di la fekk waaw di la siyaare di la liggéey ala nabi muhammadin wal ali salli wa sallim wastajib suali للمنتحى ما يسره بلا yàlla na fi yàgg lool te wér moom ñaari bunta bi soxna Badoor Saliou Thioune ak soxna Adja Saliou Thioune ñun day soxna seenu yabaloon ci xéewalam yi nga xamante ni mooy bés bi muy bisu bi nga xamante ni mooy daje ba Cheikh Béthio daje woon ak sangam ba muy Serigne Saliou Mbacké bisam boobu nag Cheikh bi dafa bëgg ni bis bu bu jotatee fo waay ne yëg xéewal xam leen ne mi ngi sant Serigne Saliou Mbacke ci daje gam daje woon ak moom moo tax bisu tey bii bi mu delsee soxna Ayda mii mu fi bàyyi ni ko yaay man maa yow yaay sama jëm taxawaay ba Cheikh Béthio taxawoon moom la taxaw waaye jamono la am melo mbas mi dugg ci réew mi tax wootewul ndaje mu ni comme wootewul ndaje rek te ak cat bi toogu sa ñam yu neex te bari te di ko joxe dafa ci am xeeti ak seen ba tax na loolu waral mu daal ñuy yebal lii ceebi ndaw la ay furwi la ak i naan lii ay barket la ñu def ndawal ak mburu ak soos yërmandeem nag tax na ci boppam sañoon na bu bu sañoon fu waay dana la fa fekk ci bisub tey bii jox la ay xéewal waaye nag suñ borom a dogal mu demee nii ba taxoon na ñam togg bari na yi da ko yóbbu ci prison yi yi mu yóbbu ko ci hôpital yi tey jii ñu ngi fii ci hôpitalum ndaje bi ñu ngi fekk suñ jëwriñ bi moo fi nekk muy Ousseynou moo ne ci hôpital bi ak soxna si ak kilifa gii ñoom lañ fi fekk soxna si daal mi ngi leen a xamal mu gudd ak mu gàtt li waroon sëñ Béthio nga xamante ne dara taxu koo jóg lu dul sant Serigne Saliou te foofu la teg tànkam newul ci lu dul ndigalul Serigne Béthio looloo waral xéewal yii moo leen koy jox di ànd ak yéen cantuk Serigne Saliou bi te di ko a àddina sëpp nag mu ngi seereel ni na ko ñëpp santale Serigne a Mbacke ci bis bi ndax muy man ak moom ak doon lu am ci bis bi la bawoo ba tax na ñi ñaan moom soxna Aïda Saliou ak a yi ñi ngi ñaan yàlla na ko Serigne Touba teg loxo yàlla na ko Serigne Touba teg loxo yàlla na ko Serigne Touba musal ci cat ak seytaane ak patam noonu yàlla na ko Serigne Touba làq fu yàgg yëgul sangam ba day man ginnaaw waaw ah, man laa tudd maay infirmier chef de post poste santé Médine te umpale woon leen ne loxo musul jóg fi tey bi ñu tàmbali bâtiment bi joxoon nañu ay koppar yu takku joxoon ndigal tamit que taalibe yi nañuy ñëw di fajoo fii ñaanal ñu moo tax tey fi ñu yem ak fi ñu yem kon am na lum fi lii léegi nag euh, soxna si lii mu def nii vraiment dañ koy rafetlu am ci mbégte loolu parce que euh, jëfu ndimbal dëgg la tey lii li ñu baax ñi doon wax rek joxe ñam dafa féete kaw kon lii buñ ko àndee ci weeru koor bi ci bës bii nga xam ne day santale euh, si feddali ci bësu bi muy sëriñ euh, cheikh bi doon sant sëriñ Saliou mu def ko nii organiser def li andi ko kon bés lu mel na lu rafetlu ko. man ne damay wax sa du ma wax sa continuité mais triple continuité la. parce que vraiment euh, depuis ça fait un certain temps damay constater œuvre sociale li muy def parce que lem soxna si yemul si lii day dem ci daara yi lépp information dañ ñu ko jox daara yi day de leen appuyer dispensaires yi day ñëw si dispensaires yi di leen appuyer ci jumtukaay surtout ci xeexu mbas mi et dafa am ay taalibe yoo xam ne ba léegi nii moom mooy continuer di leen jël en charge te loolu fi sëriñ bi dafa bindoon teg am nu doon doxe ma gis mu weesu ko dama naan moom soxna si de day waaxu dafa mel ni jëf yi dafay waaxu si ñu ko tegaloon kon continue weesu na continuité non jeexital bi day weesu patient yi parce que lii moom damay dinaa wax si contrôle euh, madame Ngaye sage-femme maîtresse sage-femme bi ak président comité de santé bi que dinañ ko wasaare si gox bi parce que on connaît les de la zone xam nañ ñu ko yow mais dinañ fexe ba fu mu mën a àgg mu àgg ko comme moom tey bu ko sañoon kër gu nekk mu dugg fa jox leen ko ñun ñu ñooy Et je parle encore sous le contrôle du président du comité de santé monsieur Walendour et madame Gaye la maîtresse sage-femme que dinañ fexe ba fu mu mën a àgg dinañ ko fa àggale parce que lii kat lu rëy la. waaw ginnaaw ba ma leen nuyoo di leen sant di sant soxna si damay ñëw tuuti ci historique ICP wax na ko sànq mooy infirmier chef de poste bi soxna si dafa wéyal kóllëre parce que cheikh bi dañu sumb batiment bi ngay gis nii amuñu moyen ñu dem seeti ko mun nañu ah hôpital de sang bi sëñ Saliou lu mu bëggoon la ak école danaa ci def sama doole dinaa digle ñu def ci seen doole ni mu ko waxee sànq mu ñu yëkkati cinq cent mille ñu nañu tàmbali bu ñuy def pose première pierre ba su ma ca ñëwul dinaa ci yable kon loolu kóllëre yëfee nag barkeel lool parce que ci li ma lay wax nii ci taarix bi mu ñu joxee xaalis boobu ñu kurti kurti def pose première pierre brique teg fi amul 6 mois yàlla tàggatal ñu ku ñu ñëw tabaxal maternité bi ku gis lii xam ne lii di coom kon barke ba ma nga ci noonu la yëfi demee kon soxna si bu yëkkatee lii teg jii mu di xeetu teraanga indi ko fii tey jii moom kóllëre gi nga xamante ne nii ah cheikh ba. tàmbali nu kon ak ñun moom moom lay wéyal tey ji ci bis bu màgg bi di 17 avril kon ay kàddu ngërëm la yoo xam ne dafa jóge ci population Médine yépp ci seen tur ngërëm li nag am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem ni ko ICP waxee sànq moom loxoom ma nga ca lépp du lii ngeen gis nii tey rek tàmbali ba dafa yàgg ca pose première pierre ba la ca Covid ba loxoom ma nga ca. xale yi mu leen di yebal fii ñuy ñëw fii ci néeg bi di fu mucc ànd ak sage-femme bu jàmbaare bi muy madame Gaye bu dee wàllu góor ñi lu leen di cuut fii la leen di yebal moom xamul lu fii fii la ñuy fajoo ci Ousseynou Gueye mii kon loolu kóllëre la kóllëre ga doxoon ma koy wéyal nag ba tey kon nag moo tax ci tur population Médine yëpp maa ngi leen ci gërëm vraiment di ko sant boo ngeen demee ngeen ne ko waaye sant gi daal am na fu mu tàmbalee waaye amul yàlla. sant Seydina Mohamed ñu ngi sant Cheikhul Khadim di sant Cheikh Béthio di sant Soxna Aïda ak euh, mbooleem taalibe Cantakon di sant l' ensemble des personnels de suñu ICP chef de poste ak suñu président comité ak l' ensemble des di du poste de santé de Médine di sant yéen ñi nga xam ne yéen lañ yebal ngeen indi teraanga yi tey si bërëb bi nga xam ne bërëbu Cheikh Béthio la ndax moom wax dëgg yàlla ñun moom Médine mënul dem sans Madinatu Salaam bañ na ko bokk leen ci suñu zone mais da ngeen a bàyyi fi ngeen bokk wàll si ci ñun ngir kan dégg ndigal ndax cheikh bi moo ñu leen dénk nee na képp ku ko yaakaar nag ma fajul ca post de santé Médine Ousseynou Gueye jiite ko di ICP chef de ma dem Gueye nekk fi di maîtresse sage-femme suñu président comité yàqul dara ci liggéey bi ak personnel bi donc ñu ngi rafetlu teraanga yi tey ñëw donc lii jëf la yoo xam ne leer nañu leeral yàlla ni cheikh bi fa mu tëdd sentir na ko ci biiram parce que même bu ñuy organiser 17 avril ñu daan def ay journée yoo xam ne dañuy def ay journée consultation gratuite ba ciy def ay euh, euh, dépistage contre l'hépatite B ñun l'ensemble des personnels du poste de santé Médine dañuy ñëw volontaire jël euh, journée boobu taxawal ko jëmbal ko sans autant que ñu laajte aucun jour Cheikh Béthio moo ñu ko jàllaloon parce que daf ñu bëgg dafa bëgg Médine bëgg lépp lu bootu ci Médine kon donc loolu moo waraloon ñu daal ñëw ci bësam di fa liggéey volontairement duñ fa xaar benn dërëm donc nag di fa joxe suñu njàkk ak suñu doole waaw loolu ñu koy dëggal tey ci jëf jii tey donc di rafetlu lii soxna Aida def ak euh, naatangoom yi mu àndal di ñaan yàlla kattanal leen dooleel leen lii ñu mën ren bu déwénee yàlla nañ mën lu ko raw waaw ci daraja euh, Cheikhul Saliou Mbacke ak euh, Cheikhul Khadim mi nga xam ne mooy suñu wasila donc di kontaan bu baax a baax nag ci taxawaay bi macha allah yàlla na yàlla.